Euh, d'appartenir à une organisation terroriste tey mooy suñu président te leeraluñ ko côté boobu nga amee ay crainte non mais en fait tu sais nit bu ñu la jiiñee da ngay seetal sa bopp am na loo xam ne bu xewee ci réew. comme Karim l'a demandé pour la révision de son procès. xam am na loo xam ne bu xewee ci réew te lu ndaw parce que dafa di loo xam ne dafa xew mu rëy ñu rëyal ko. Mm-hmm. wax ko àdduna bi yëpp ñëpp ah, teg ci seen bët di ñu xool mu am ay nit ñu ci faatu mu am ñu ci yàqule. am ay sénégalais yu investir seen investissement yàqu ñu taal fi ay station essence yàq fi ay ay Auchan et cetera et cetera li ci yàqu dafa bëri yaakaar naa balaa ñuy wax amnistie parce que amnistie baale la. Mm-hmm. mais yow balaa nga maa baal. nga xam loo ma def. mais ñun dañoo baal ku ñu xamul. kan la ñu baal. kan la ñu baal. ak lan la ñu amnistier. Mm-hmm. lan la ñu amnistier de deux mille vingt et un à deux mille vingt trois li fi xew bari na. 2021 2023 la ñu wax non. mais ñoom ils ont promis qu'ils pouvaient revenir sur ça une fois au pouvoir. je ne sais pas ma xam discours ki la woon rek. je ne sais pas si le parallélisme des formes permet cela je ne suis pas. je ne suis pas un juriste nee na mën na nekk un fin juriste oui oui voilà oui elle peut être abrogée mais bon c'est en respectant le parallélisme des formes mm. euh, naturellement mais en tout cas man li may wax foofu mooy dafa am loo xamante ni ni bu xewee cim réew baaxul sax ci image réew mi maanaam Sénégal da nga fay investir ñu yàq sa investissement et y a pas de responsable benn Sénégal danga nga fay dem manifestation am fa ñu rey la yora aura pas de responsable mm-hmm. image boobu ñun moom la ñu joxe avec cette loi d'amnistie la te man ma ci je ne sais pas qui est responsable mais war nañu xam qui est responsable ils nous doivent au moins cela je parle même pas des politiques mais même gestion bi nga xam ne force de l'ordre yi defee nañ ko mbir mi lu bëri def na ci leer on parlait de bouclier yoo xam ne ay nit la on parlait de torture te ñu lépp ci biir xam nga li gën a li li important et pourquoi il faut revenir sur cette émotion là sur l'aspect émotionnel mhm. te ñu jéem ko parce booy wax li nit ñi di ree di xàkkataay di kii te amalu leen benn njëriñ ci lañ lay déglu mais Sénégal melul woon noonu ñun màggee wuñu noonu bu ñu màggee woon noonu tey ay dof la ñuy nekk te Sénégal foofu la toll il y un programme national d'abrutissement. du temps des socialistes on avait de grands hommes. qui qui organisation yu mag yi on avait un peu donc euh, loolu ku ko gisul tey. UNESCO ku ko gisul tey. c'est parce que danga amul vision. wala mm-hmm. da mënul seetlu. mais dëkk bi toll na foo xamante ni ni tey moi je dis tout le temps et je le dis euh, à mes amis que Sonko a eu le mérite de nous révéler nos voisins ñu xam ñu xam dëkk bi ñan lañ ko bokkal et ça c'est important merci baa ñëw ci euh, Val Diodio